xew man danaa ko wax. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. Cheikh. tànn tànn dama koy jaay. yow man sa juróomi jaay tànn. tey lëbële wu ma ko de dama koy jaay tey dama koy jaay. Cheikh. déedéet déedéet. Cheikh de. tey teg ma teg ma loxo bi teg ma loxo bi. eh waa kan. déedéet déedéet. te ma ma dem jaay wañaam moomu kon kon kon kon wañaam moomu damay waxtaan. yow man damay jaay ba ñu ba heure bi ñu nodd xam jàkk bi mu ngi nodd te ku jigéen ki kii kii kii kii dafa maa nee na ma jox ko tàndamam ñu dugg si biir te ma dem jox ko tàndamam ñu ñu dugg si biir ba xam la may def te xaa xam jox la may def. léegi bu ma la amee incha allah. ñëw naa ñëw naa ñëw naa la may yaa ngi ñibbi waaw waaw Abba naa yow jaaree ma dégg nga. ku dul fii. fii yow dafa may heure la nag jiitu. te te te te xaaral rek jaru ko te jaru ko dinaa la. jaru yéen ko nag jaru yéen ko xawar rek. yéen am na lu fi xew man danaa ko wax. Cheikhou lu muy daw. dootu ko defati su ma dootuñu ko yónni. mu wër ci mbedd Fatal ñàkk fay. xoo xoo bi ma joxoon tànnama bi tànnama bi xale bu jigéen bi moo ma jee dugal ma si biir kër gi am ah, ah, daa dugal sama tubaab bi daa koy dama leen di boo xoolee daal dama leen di na ko mi ngi fee nañ nañ dem nañ nangu na sa tàndama bi nañ dem nga nga jël sa tàndam nañ dem mi ngi fee. si si si si jaadu koñ bi boo boo jaadee si taw si taw si taw si. Seexu Taaboy si góor gi Seexu kii kii sa sa dugal la am na mu si dugal. mokk man la man la asa asama ki may liggéey. kii dugg affaire bi de affaire bi de. loo fi def. kii laa àndal kii moom moom tànn ma kii na. est-ce que xam nga la moo tax ñu jox ma ko. yow munoo wax ba pare yow nga naan da ngay bandi bandi. nee na nga jokkoo tàndam nee na nee na nga jokkoo suñu yow génn sama wax dégg nga. eh, eh. bu ma soral de. eh man kenn taxaw sama kanam di am looy it yaa ngi may xool. ah yaa ngi may xool. eh moom ah. eh madame. Eh. tànnama bi nag tànnama bi. te ngaa dem te bañ a jël tànn góor gi ngaamul te saytaan. yow da ngaa cagal waaye kii wañaan wañaan bi la dina la ko ko ko tubay ko ko ko man man sama bos daa am na lu fi xew man danaa ko wax